nga jëlee xalé bu jigéen bi ànd ak mom feulé nga xamné moy mooy gën def examen gynécologique bi euh, parce que interprétation yu bari gën nañ ci rapport bobu lan nañu mëne jangaté rapport médical bi surtout. non non non non kérok amu rapport médical parce que dañ mëne ma constater mm-hmm. ma constater ñu laaj ma mëne len mënuma tontu. kon mo la laaj. Euh, <laughs> toujours euh, Gabi. Gabi maître Gabi Sow waaw mu laaj la lan nga lan nga gis ci voilà euh, ak euh, Mamour Diallo. Mhm. on nañ ma plusieurs fois d'ailleurs je eu ma capture d'écran écran. Mhm. ma traduire par procès verbal de huissier. Mhm. donc maa ngi yore kayit yi et wonoon naa ko doyen des juges. je ne ma naa donc liggéey boobule bu ma l'opportunité opportunité dinaa ko doyen des juges. Mais euh, man, je dis non, je ne peux pas répondre à la question parce que l'orthodoxie ne me permet pas de répondre à la question. Hana, nous, ma réquisition. L'orthodoxie ne permettait pas de répondre euh, moi Gabi ak ki nga xam ne Mamour Diallo ñu bëggoon ci guddi gi nga wax leen. non ci ëllëg sa. ci ëllëg sa ci suba si waaw. donc bi nga consulté Adji Sarr ci guddi gi da nga def rap da nga bindu ci note nga denc. voilà dama bind ci note denc. Mhm. xaar. Mhm est-ce que Goudi gogo encore nga def prélèvement bobu ñuy wax ci guddi googu defloo ben prélèvement. def na prélèvement déposé ko laboratoire. mais faut rek laa mën ci guddi gi. ci Goudi gi ci Goudi gi. waaw da nga def ben prélèvement. ben frottis nga denc ko ci labo. écouvillonnage précisément. waaw ah, écouvillonnage yóbbu ko laboratoire xaar euh, résultat yi loolu rek laa mën a. fi ñu làngaaba euh, ñëw na nañu partout. La femme du sperme a été prélevée sur Adissar. Je ne peux pas répondre à la question pour moment. D'accord. Légui, docteur, nous sommes battus à La Journée bobu nga passé ko Vous nga xamné moy euh, ci la bi. Qu'est-ce qui s'est passé sur journée par rapport ñi nga xamné journée bobu metti won trop ndax j'ai reçu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'appels. Mm-hmm. Beaucoup d'appels. Je yoré capture Et euh, tout tournait autour d'eux lu nekk ci biir Mon ne la moom il faut euh, réquisition. il faut réquisition gendarmerie la police. à un moment sax yónnee naa euh, maître mon mhm. Gabi ma ne ko man dama sonn. Mhm. je veux rentrer chez moi. Mhm. ma ne ma ñibbi. alors vous me déparé quelque temps la secrétaire suma affaire secrétaire assistante bi ooma ma ne ma ah gars yi ñoo nañ de ma ko ah bon pour éviter. d'être gars yi ñan. maanaam gendarme gendarme yi ci hôpital Avec euh, mhm. euh, ak xale donc avec xale non avec la dame. waaw bon donc Adji Sarr waaw mhm. Sarr. na ma yàlla baal ci tur ci kaddu boobule. Mhm. donc euh, ma pour ne pas la mettre mal à l'aise pour éviter d'appeler un autre médecin ma aussi. Euh, réquisition officier de police judiciaire daf lay poser ay questions daf lay laaj. da nga war a tontu lu mu la laaj précisément pas plus pas moyen da nga war tontu luñ ñu la laaj te loolu laa def peut-être que c'était pas parfait mais loolu laa jéem def. bi ban heure exactement la gendarmerie daal di ñëw ak Adji Sar feulé ca hôpital ca hôpital ba je rappelle que biñ ñu doon ñëw la ñu indiwaale réquisition bi. Wa. ban waxtu la Euh bu fekké né djoumuma ay entre 17 h 17 h 30. Kérok, 18 h le 3. voilà février. février 2021 que la veille traduire mm, mm. c'est pas la la question ne m'est pas posée la veille. Mm-hmm. la question m'a été posée à part veiller examiner x décrit mm-hmm. c'est clair c'est le présent. docteur bi ñu la indilee xale bu jigéen bi est-ce que présenté la carte d'identité non indilu la carte d'identité non dafa la wax rek Adji Sarr laa tudd ci lu wax waaw. est-ce que wax na la nag kan moy protagoniste bi kan la jotel. xaw ba léegi xaw ci dara. yow kañ nga xam ni diw lu bëgg a alors euh, nu mu demee euh, bu ma bindee rapport bi ma jox leen déjà ci saa Euh, gendarme bi d'ailleurs bu jigéen la ma interroger ko ci kanamam. Mhm. lu ma wax yëpp lu ñu waxante yëpp ci kanamam. après ma ànd ak euh, secrétaire assistante bi ñu dugg euh, defal ko quelques examens et puis après bind kayit bi mu bëgg xam lu nekk ci biir kayit bi ma ne ko déedéet. soxna kan ma ko bëgg a bi wala gendarme ah bu jigéen bëgg a xam lu nekk ci biir ma ne ko déedéet. Mhm. loolu officier de police judiciaire moo la yónnee moi. je vous je je le je le réponds Les gens qui dem ci OPJ bi ils ubbi ko wax mais euh, waroko ko ubbi et si par hasard mon ubiko, ko je euh, ne ko moi je fais plus de rapport à la gendarmerie parce que euh, à quoi ça servirait. je ne fais plus et ensuite vous je ne vous connais pas. Moi je suis gendarme oui mais elle était en tenue en civil plutôt. Hmm, mané ne ko ana carte bon mu ma de toute façon je suis gendarme mané ne ko pas accord. mais génnewul alors présenter carte. non alors ñu ñu avancer bu ñu génnee ma gis il y' a deux trois quatre gendarmes qui ont accompagné cette dame mais nan mais attends quatre gendarmes pour un malade ou euh, une dame Il y' a quelque chose qui cloche pas ma au euh, directeur bi mané ko ah jotna fi euh, cas de réquisition traité naa euh, la réquisition est dans mon bureau Ouais, ça me semble assez sérieux euh, assez lourd Je me ma ah bon je me ko waaw ok euh, on va suivre ça Tu le ma wax le mhm. le ma wax je peux le prouver parce que sur mon téléphone bon abonnement mhm. donc bu ma demee Sonatel mun nañ ma wax kan la oo ban heure la ko o ban bis la ko o lolou yomna alors munema on suit ça ci elekse, ci gennaw elekse, lama o munema jigen bu nga recevoir kérok numu tudde ko ah deug deug nak requisition mom pratiquement dans la semaine on reçoit 2 3 parfois 4 de tout hein de tout de tout bord hein gedjeway jamnyadio partout euh, même fi euh, à la foire même si euh, Philippe Maguilène est plus proche, mais ils envoient chez nous. Bon, le euh, euh, temps est-ce que tout le ça Je dis oui. Je dis ah, je non, le tout de Je dis ah, quand hmm, wax ji mhm. voilà alors à partir de là. Mhm ma gis ne ci souf ñu may oo suma rak ya may oo suma and jam ya may oo donc man commencé réaliser ça veut dire c'est dans la journée à peu près du 5 6 à peu près oui du journal bi génnee bi journal bi fësale ba pare voilà 5 mhm. 6 je crois que Ahmed Aïdara moko ñëk a wax ci ci le journal Les Échos moo publié ah bon ok kon mhm. muy mhm. donc euh, le matin de bonheur le directeur m'a appelé mu oma ma wax ko luma ma xalat après mu yëgal ma

Euh, ngi gis Ousmane Sonko la première fois mhm. je lève la main droite et je le jure mhm. devant Dieu. Mhm. Euh, j'ai vu Ousmane Sonko la première fois de ma vie première fois je pense le 25 26 27 juillet il traversait Kola. J'étais chez moi à Gola, à la maison familiale. Oui, vous passez, 2022, mhm. hein? Oui, 2022. campagne électorale, campagne euh, législative. Mhm. Muy romb taxaw ci ci diggu oto bi, maa ngi suma kër ma gis ko. La première fois comme ça jëm. Sinon jamais de ma vie. Jakarlo mo Ousmane Sonko. Jamais de ma vie mo Ousmane Sonko.

Euh, lu may ñaan yàlla daal bu ma xëyee lu may ñaan yàlla moo di ma def suma liggéey nu mu waree teg ko ci yoon pare ñibbi suma kër mhm. mais euh, même ci biir équipe bi ah waaw il paraît que il que dégg naa euh, kenn waxuñu dara xamuñu nu mu demee lan moo xew lu tax bon wax ji bare na daal waaye Euh, je ferme les yeux je ferme les oreilles je réponds à la justice seulement est-ce que loolu Indioul la ay ah, direction. pas direction euh, oui à direction oui parce que hmm, euh, waxoon na ne ma dossier bi directeur bi. directeur ah. dossier bi ne ko dossier mhm. dossier ne avant avant PV euh, je crois que après PV nous bu mu mhm. parce que nous me euh, quand il euh, résumé ma un résumé vraiment très succinct mhm. très très très très court mounou ci dara bon dit ma écoute le droit bon le PV est sorti le rapport médical est sorti mon problème maintenant ko non génnee ko dans les réseaux sociaux. xam naa nag affaire dossier boobu la fa la ko bàyyi. parce que ah, parce que da nga ko menacé nga ne ko bu ñu demee ni dama koy génne dans les réseaux sociaux. ñëpp gis ko ko ñoo xam. abe oui parce que mënuma ko jox une partie yëg ko une partie du ko yëg déedéet. mais docteur bëri na nga xam ne dañ ne woon bu nu buggoon prélèvement bi mu doon loo xam ne mën nañ ko accepter keroog bi ngeen defoon prélèvement bi deux échantillons ngeen war a am. Ben bi dañ koy garder en cas de contestation ñu mëna def li nga xamné moy contre non lolu lolu du ma ci dugg parce que c'est un peu technique mhm. et puis c'est dans la procédure mhm. lolu je préfère pas dugg ci parce que bugguma wax lo xamné ne suba dina euh, voilà docteur bëgg nañu comprendre tamit kérok bi nga taxawé nga ne nga délo est ce que rapport bobu mun nga ñu mun nga ñu liiral li nga xamné moy rapport bi parce que nit ñi ñu ngi naan depuis 16 heures tëdd asiqul euh, ak goor ñi naan depuis ay fan ainsi de suite est-ce que mën ñu interpréter le rapport médical bi nga xam ne nga def. non <laughs> non non non. parce que loolu it secret médical Wa, waaw loolu it secret médical parce que dafa bokk ci de ma laaj. Mhm. tontu naa ko sous forme de rapport médical. rapport même si c'est à la portée de tout le monde ñëpp xam nañ ko ñëpp dégg nañ ko ñëpp gis nañ ko mais ñëpp gis nañ ko Wa mais man du ma ko wax mhm. <laughs> d'accord léegi docteur veux comprendre bëgg naa comprendre <laughs> uh-huh. ci information yu ñu am am nga ay agression physique yo xam ne am nga ko ci biir CTO euh, euh, pas euh, exactement ça. Mm -hmm. pas exactement ça mais am na ci kenn ko xamné ne mhm. Lutax gratuitement vraiment xawma, j'ai pas compris. Mhm. saaga bon et puis amna yu bare yo xamné jaruko parce que c'est dans le cadre du travail. après amna bras de fer bu xamné dafa installé wu ci hôpital bi. waaw am na bras de fer am na bras de fer parce que mm, daf ma ne bu leen defati rapport médical ñu ko ok ñun loolu ñu arrangé parce que rapport médical boo koy def da ngay enga tey par exemple depuis 2021 maa ngi ci problème mais rapport médical bi ça me rapporte rien absolument rien et rien du tout boo gaañoo nga dem euh, hôpital ñu bindal la certificat médical da ngay fay Vous payez pour avoir votre certificat médical. Mais nous, les réquisitions, rien. Zéro. Man, ko def ça, moi m'a arrangé parce qu'au moins, Soubo Kenduma oh. Je me rappelle il y a 10 ans, enfin il y a quelques mois on m'appelle pour un dossier de 10 ans derrière. 10 ans ans. Et en plus, nous, au moins, voilà, euh, par huissier, par oui huissier. Mm. vous êtes euh, convoqué au tribunal pour affaire vous concernant. ça veut dire après affaire Non, non non non avant ça. Mm. avant ça Moi, mm. au commissaire bi mais c'est quoi ces histoires là Mon ma je vais me renseigner. après mon vais ma dossier pour nous traiter. Il y a ceci il y a cela mais non attends faites que la justice ni la je convoqué man mon rapport parce que là franchement euh, pour affaire vous concernant point euh, quand même c'est un peu irrespectueux quoi Bon, mais euh, il a pu régler avec le parquet et puis finalement, Déoma. Mhm. Bon, mais euh, je vous dis, vous faites qu'on me demande d'arrêter, je m'arrange. Alors, nous arrêté, man m'a arrêté, les collègues ont arrêté. Collègues, avant solidarité, nous avons arrêté. Avant, nous avons dans le dossier, nous avons keneen def rapport médical nous ne ko on n'est pas là pour euh, jouer les premiers second rôles dettes ou on fait ou on ne fait pas vous avez demandé de ne pas faire on ne fait pas Qu'est-ce ko ñu toog weer gendarmerie police di indi ñu ne on ne fait pas sur instruction du directeur on ne fait pas alors il nous convoque nous ok légui, on def <laughs> mais attends yooyu yaa ne fait. finalement bon euh, on comprend plus rien non vous ne pouvez pas ne pas parce que la demande parce que c'est le service public Mais ko ah c'est le service c'est le service public nous ñu war waaye nag boo ne ñu bañ koo def yooyu ay hôpital bi tant que c'est dans l'hôpital yooyu ay au hôpital bi loo ñu wax ne la ñuy def ne ko ok léegi euh, bu la réquisition passe à la direction bu jëmee direction direction bi def benn annotation yónnee ñu ko ñun bu ñu ko traité ba pare yóbbu ko service juridique sous pli fermé sous pli fermé encore une fois il ko a service service juridique ci chaîne boobule bu amee lu manqué man du ma def amna ay collègues yo xamné aussi duñu def. mais ça veut dire léegi certificat médical depuis l'affaire Adjessar. Adji ñaata temps la mëna a jël bala gendarmerie doon gendarmerie mi xaar jot certificat ben rapport médical combien de temps lay def. bu njëkk ba vite fait hein. euh, bo on fait les consultations, les consultations premières et puis 24 euh, heures après maximum 48 heures le certificat est disponible. Mm-hmm. parfois la gendarmerie nous appelle on dit envoyez quelqu'un le chercher parce que aussi le menu compte rendu. Euh, certificat médical manam lu melni certificat médical mënoo ko jox à tout le monde. Mhm. parce que beaucoup de gens kenn mën na ko ça n'arrange pas mu xortiko wala mu jéem non mhm. donc on remet à une personne assermentée manam budul policier muy général donc bu ñëwee en civil il faut qu'il nous montre une carte professionnelle mhm. légui lolu yépp jeexna dañ koy jox service juridique de ce fait képp la direction est au courant parce que dina la direction et ensuite service juridique dina ko parce que faut ngay les euh, rapport définitif. service juridique mon mooy moom da koy ubbi wala du ko non du ko ah non non non c'est plus fermé Il y a beaucoup de choses qui sont ku la ko yónnee. Mm-hmm. moo ko mën a ubbi. ubi mm-hmm. ko war